sociaux ñuy xamal ne rek euh, Benno Bokk Yaakaar mu doon euh, coalition au pouvoir moom moo nam mu def ab recours jëmale ko nag ci li nga xamante rek moom moo di euh, candidature bu Bassirou Diomaye Faye foofee ci conseil constitutionnel jamono ji nga xamante rek moom moo Bassirou Diomaye fay mu ngi nekk ci biir kaso bi waaye ñi nga xamante nag ñoom ñoo di jege ñaale ak ne moom moo di ci biir ñoom ñoo nekk a li nga xamante moom moo di a jëmal ci li nga xamante ne moom moo di euh, campagne bu électo élection euh, euh, moo di ak Abass Fall tey ñu xëy li nga xamante nag moom moo di coalition au pouvoir bi di Benno Bokk Yaakaar na mu def ab recours jëmale ko ci li nga xamante ne moom moo di candidature bu Bassirou Diomaye Faye na leen toppal mbir mi ba xam ndax xibaar bi ñu mel xibaar bu dëggu la wala xibaar bu wér ak lépp lu nga xamante ne nag jëlee nañ ko ci xibaar nañ dal soit fii nii yekkee leen ko inshallah ma leen naan bu leen fàtte abonné ngir gunge ñu baax a baax ci liggéey bi ñu def waaye tam bu ko defee rek ngeen mën a jot euh, ay xibaar saa yu ñu amee xibaar yu bees yu nga xamante ne moom lañ leen war a jukkil